bisaab am na waaye daa xaw a seer waaye am na waaye nag client yaa ngi ñëw waaye fi mu nekk moom dañoo amagum toogaay bu baax daa buñ toog ba client yi mën a jënd waaye bu fekkoon am nañ client yi moom fu mën a toog moom client yi danañ mën a jënd si waaye nag fi mu nekk toogaay ci boppam na moom lan amagum waaw waaw suñ xel ndax man fi mu nekk maa ngi war a jaay buy maa ngi war jaay ji te yooyu yëpp mënu ma cee jaay dara ndax amuñu toogaay bu mën a tooga ba jaay loolu rek mooy suñ xalaat moom xanaa li ko war a xanaa kay ñàkk place rek ñàkk place rek bu nu amee fu nu toog daal moom danañ mën a jaay waaye bu nu amul fu nu toog moom duñ mën a jaay moom ndax njaay mu nga xam ne sa xel doo xam looy jaay waaw waaw waaw <laughs> rek la <laughs> waaw loolu de moom dana baax moom ma ne ko loolu daal moom bu nu ko dana baax waaw. waaw mi ngi ñëw kay buy kay am na seer na waaye dana ko jënd ndax moo fiy pexe ah, basaab na moom euh, yombul na moom ndax wax dëgg pal téeméer ak juróom fukk te ci màggal màggal gi ñu ko doon jaayee ñeenti téeméer ak juróomi téeméer kon nag yomb na ci lool te lépp mbir dañ ko jënd si kon nag ñoo ngi sant yàlla baax jërëjëf. xaar tax koo bari ren moo guyee danoo manqué min daa jot dem Baye Fall bu ñëwee jàmm rek la ñuy may bu ñuy làq bu ñu rek ñu génne jaay suñu ñu génn client yaa ngi ñëw kay ñu bu baax a baax waaw ñu ah ñoo ngi sant daaw da baax na ren dañu ngi sant yàlla bu baax njëlbeen gi dañu ngi sant bu baax a baax. bisaab da ren yomb na daaw di la gën a seer ci ren ndax daaw euh, daaw ñi ngi jaay pot 1000 francs ren moom ñi ngi jaay pot 700 pot 600 moom la ñuy jaay. ak daqaar beeg junjeer yi yëpp yomb na ren waaw client yaa ngi ñëw moom bu baax tey ah, ah? daaw moom lañ gën a ëpp client ndax ren moom xam nga ni marché bi demee la rek moo tax waaye daaw moom ci lañ waaw ñun kay fi mu ne 3 heures daanaka bu jotee suñ xel nekk ci ñoom rek ñooñu xaw a kii moom. Ah, ñoo xaw a njaay mi tuuti waaye tey de moom bàyyi nañ ñu moom ñu ngi toog di jaay. ñun de bu nu wutaloon fun jaaye moom lu metti metti nañu fii ngeen di toog bu boobaa ñu dem fa waaye dañ ñoo waxagut dara looloo tax ñuy naxanteeg ñoom rek di jaay di dem ak a ñëw ah, ñun kay ñoo ngi ci ndigal li buñ ne ñoo ñi ngi ñëw rek bala ñoo ñëw ñu laal li suñ bagage yëpp yóbbu waaw duñ xëccoo benn yoon ndigal ndax junjeer moom am na ren séerut pot 1000 francs la rek eh, kii culo bi culo bi bu dee bisaab pot 700 bu dee buy pot 600 ah, li may wax client ñi ñëwagut ñoo ngi leen di xaar rek suñ ñëwee ñu jaay leen lu yomb rek ñun xam nga dañ ciy jàpp ndax dëkk bi dëkk bu yërmande la moo tax ñu ciy jàpp bu baax. maa nii mi ngi mi ngi jàll wax dëgg liggéey bi. mën naa ne koor gi ba léegi préparation koor gi amuñu jot chaque jour ñu ngi ci bagage yi vaisselle yaa nii léegi ñun ñooy jënd vaisselle yi après ñoo koy créer ku bëgg sa photo am na da ngay envoyé sa photo ñoo koy créé daal ñoo koy tiré ñoo koy def ci kaas yi dañ koy jëndee nii après ñun ñoo koy créé wax dëgg ñu ngi ciy gis bopp bu baax daal client yi ñu ngi def commande waaw ku def sa commande ñu defal la waa sur commande rek lañ koy liggéey nag. ngay def sa commande joxe avance ñu defar la. koor bi la a. non non ñu ngi koy liggéey heure boo ko bëggee rek moo ñëw ñu defar la. waaw koor lañ ci gën a gis suñu bopp ndax xam nga jigéen ñi moom koor moom vaisselle moom xam moom moom macha allah dañ ci kii bu baax dañ ci yëngu bu baax a baax. waaw client yaa ngi ñëw bu baax a baax. non koor ci ab préparation koor gi lañ gën a gis suñu bopp ñu ci liggéey bu baax a baax instant bi amuñu jot toujours commande yaa commande ñu ngi léegi ñu ngi leen a wax dëgg ñuy sant bu baax daal ñuy sant bu baax waaw ñu ñëwagul ma leen wax ñu ñëw rek ndax bagage yu baax yaa ngi fii avec Tafa graphique lépp loo bëgg rek am na fi nee place bu ndaw bi moo nekk nii place bu mag ngi fii sant Sëñ Fallu bi dañuy defaale ay bâche tamitam ak euh, blouse xale yi blouse daara yi internat yi waaw waaw na bari na de waaw bari na bariwul lool waaye mais instant moom wax dëgg yàlla macha daal ñetti téeméer daal baax na waaw ñu si am dara waaw ñu ngi client yi ñu ngi ñëw waaw ñu ngi ñëw waaw waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk waaw ñu si waajal bi bu foofu moom macha allah waaw waaw Baye Fall moom si digal lañ nekk tubaarkàlla wax dëgg yàlla kontaan nañ ko rafetlu nañ ko macha allah waaw digal rek jëf sant sant sant dëgg bi moom ak cant doo nga fi nekk ñun luñ def rek baax na ñun daal wax dëgg yàlla ngi si liggéey bi mu ngi neex waaw Baye Fall li def client yaa ngi ñëw macha allah macha allah ñu ngi ñëw tànn ba mi ngi dox wax dëgg mi ngi ñëw moom amuñu si benn jafe-jafe soxna si waaw. waaw 1500 ak waaw dañuy détaillé dañuy takk 100 francs fukki dërëm 1000 francs nga xam ne bii 1000 jar kilo bi 1500 waaw détaillé bi 750 waaw moom mi ngi dox daal tànn ba ji moom du waaw waaw ñi ngi sant bu baax waa